virus bi nga xam ni euh, mooy circulé waat ci dëkk bi am na nag ñuy wax ni dafa dafa jóge ci école bi may wax ni école ñeenti million élèves ñoo fa nekk xam nga ñeenti million élèves bu fekkente ni bii ab virus dafay dox du ñu wax ay ay yoo xam ni mi ngi diggante ñeent fukk ak ak téeméer suñu waxante dëgg te it ñi nga xamante ni ñooy moo yore mbiru euh, mbiru santé xam ko nee nañu virus bi euh li ko fi indi indiwaat du dara moy baye ko bàyyeeku jep baye euh takkatuñu masque euh, raxatuñu loxo yi et cetera ko commencé waat nuyo bi loolu ensuite cérémonie yi ak événement yi ñu organisé sans compter aussi sedd bi nga xamni euh dafa dafa dafa ñew te sedd xam nga dafa nekk euh, kii climat boo xam ni euh, day tax virus bi mën a mën a dund mën a circuler euh, sans compter ay cas importé ñi nga xam ne ñu commencé dugg ci ci ci ci dëkk bi ba tax na mën nañu wax ni xale bi élève bi mais euh, école sax mooy euh, bërëb bi nga xam ni ci la ci la nekkee en sécurité ndax école rek moo am protocole du ci mbedd bi du du ci sax oto yi du ci sax nag kër yi donc euh, jàngi sax moo gën a wóor toog ci kër waaw ministre Talla aussi wax euh, les inspecteurs d'accueil wax les inspecteurs d'éducation, de la formation directeurs d'école yi euh, chef d'établissement yi ñu taxaw ci respecter ci école yi les mesures barrières ndax loolu moo loolu moo tax ñu mën a ubbiwaat suñu suñu école

xel sax daf ko daf ko xalaatul donc jàng nañu naka la ñuy euh, dundee ak ak virus bi ndax it foog ñu dund foog yor activité te it euh, mën nañu ci école euh, wóor na suffisamment pour que xale yi continuer jàng correctement en respectant les mesures barrières